ak ziar baax Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Souhaïbou Mbacké xam ngeen ne tey ji la alxames yem ak juróomi fan ci weeru koor 1443 hijriya waaye dëppoo ak juróom-ñaari fan ci weeru ci weeru avril 2022 miladiya mbokk yi ñu dellu siwaat fii ci pàkk bu sell bi di daaru naar muy kër Serigne Souhaïbou Mbacké Abo Madiana ibnu Seexul Xadim ci bis bi nga xam ne ci lañ ko fàttalikoo Serigne Souhaïbou nag léppam day weeru koor ndax xam ngeen ni ci weeru koor la feeñ jamono ci weeru koor yi la tànn de sunu borom subhanahu wa juróomi fan ci weeru koor saa bu dellusee taalib yi dajee fii ci daaru naar di màggal jëmu ji sell jooju ngir baat keeru nga xam ne barab bii sama ginnaaw fii lay dalloo moom Cheikh Souhaïbou Mbacké Abou Mariana mbokki loolu tax tey jii groupe Lamfal communication ci euh, directeur programme sëñ a baax di ñaanal ji DC euh, Alioune di ko ñaanal yàlla may ko fanu gudd lool waa na ko wér ndax jumtukaay bi nga xam ne ci la ñuy liggéeyal lislaam ci la ko yàlla jaarale te léppam mu di ci liggéey Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mbokki kon ma ànd ak Ilaas Fallou Silla tàbbi ci barab bi xool taalib yi naka lañ ziyaare barab bi suñu noppee daañu ànd ak yéen ci njaboot njabootu Serigne Souhaïbou Mbacké yi fu ñu mën a nekk ñu ànd fa ak yéen waaye nag bu leen fàtte ne El Hadj Fallou ci koor kon nag mbokk yi ci kanam <laughs> wasalaamaaleykum wa كالكلي وجسدي ناديت ذلات العزيز بلب ما دل النزيل ولي كان بالعزيز وسالني المسدي نابي توحيد الأهل سفري وبلدي إلي عاد في سفر هلي ويدي بسفر مساني الله للنفر بجندي في خلدي لم ينهني مبارز وفيد ربي بارز إبليس لا يبارزه جند العزيز الأحدي لم ينهني من اغترى أو من لقلبه مراد ولي يقود في القرار ربي ما لم يجلي الله كان لي بما يبقي سلالة بما غدا ولي قدا بما وخير الخديم هدية الله المعين ذاق لغير الليل واليوم بالله العين من ساءه في قديم مدى لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يمنع النصر yàlla dafa dogal. sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ci boppam. moom moo ko moo ko tànnal boppam. ba noppi bëggal ko boppam. loolu nag ñun li ñuy gone gone mën nañ ci seere. da bëgg gi ko bëggal boppam. dafa làmm ñaari wàll yëpp. mu wàllu biir bi ak wàllu biti. am na ci loo xam ne ñun lott nañu ci. xam nga cofeel mënta weesu. nga ñëw ci sa kilifa mën na la saa boo romee ci penc bi yëg naa la <laughs> bàyyi xel mënta weesu loolu ah moo tax day faral di wax ni màggalu Serigne Chouaïba saa bu dikkee mun ma ci dégg ma ci nekk lu ci war nañ ko def te yaakaar naa ne bi yàlla dogalee ak say loxo ba léegi baat yi miin ko kon baat yi may xëy bi miin na ko <laughs> ah, danaa bu ñëwee ca war nañ ko def léeg dama ci yem sax damay gis na mu ci àgg foo xam ne nag baru fu mu ci àgg na léeg mu naan ndax am nañ fi documentaire loolu la lu yees la lu ma dégg barki dem ma ne waaw ndax moom am nañ fi ay document ah am na fi <laughs> loolu tam day wane yéenam ak cofeelam ci sëñ waaye yéene sëñ bi nag ci barab bi mm. moom da ko xam bu wér mm. nag lim ci sante yàlla xam na ne lépp sëñ Tuubaa la mm-hmm. Mm-hmm. xam na ne lépp ci sëñ bi la tàmbale ca la yam mm-hmm. kon euh, noo ngi leen ci ndokkeelaat bu baax di suñu borom liggéey bi suñu borom taawu leen ci. te gàttandu leen ci. ba yaakaar yi kilifa yi am ci sa jëmm ba tax lépp nu teg ko ca loxo. Mm. nga lay seq tawfeex sëriñ bi ak dimbalam. ci barke bis la. Mm-hmm. waaye da dañ doon fañe sunu sunu sunu yéene rek. ak kóllëre gi nga xam ne nag dox na ci diggante. Mm. sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne moo fi sëriñ Chouaïbou mm. ak suñu Alioune Thioune nga xam ne. day dongub sëriñ bi. moom nag mu nangul ko loolu ba noppi ko ko mm-hmm. waaye nag moom xam na ne téye na ko mm-hmm. waaye ñun itam nga xam ñoo ay bokk mit xam nañ ko mm-hmm. kon ma ngi koy fetliwaat ci daraje bis bi di ñaan ki ñu fàttali ko tey tax ñu daje mu sëriñ Soxayba suñu borom dolli ko yërmande ak njéggal ak i ngërëm te taas ñu si barkeem di ñaanal sëriñ Cheikh Amadou Mbacke suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba yéen yi am ci liggéeyal ko ku baax ki ci moo xam ci njaboot gi ak ci yoon wi ak ci taalibe yi suñu moom dafa ko ci lu kaw yëpp njort maa ngi sant bu baax xam na bis bi dafa xat waaye faw ngeen xam ne eh, moom am na ci yéene joo xam ne bokk ko kenn ndax xam ne yéene sëriñ bi ci moom te xam na sëriñ bi amul lu dul bis bi kon day mel ni dafa wax ne lu lu lu mu ci defar rek dafay amut waaye yéene na ko ñu ngi jégul baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf suñu yu baax a baax jërëjëf ñu ngi lay nuyu dina siyaar bu baax di leen ndokkeel ci weeru yi di leen ci siyaar bu baax a baax di rafet lu seen tawaay loolu ci barab bi xam naa ni ko suñu suñu Ibrahima waxee ci diggante sa diggante sëriñ bi loolu moom ñun ma ma mën nañ ci mën nañ ci seere bu baax baax a baax ndax màggal gi bañ ko commencé mm, booba suñu Ibrahima mi mi mi mi mi ngi fi Tuubaa nekkal la fi. <laughs> wala sax accès guñ ci yow waaye booba kenn kenn kenn jiituwu leen ci màggal gi waaw lépp lépp lu ma lu ma sa nekk yitte si sëriñ bi jaar ci ñun rawatina rawatina lu jëm ci mbiru màggal gi ba accès ci moom dana ci dox pas pas ak yéene ak yéene moom booba sax xanaa tere bi nekk gu fi <laughs> ba ñu ñëwee Dakar bu ko defee nag day mel ne it. li li li waral jokk yu bëriwut it day mel ne saa yu ñu ko saa yu ñu accès ci moom li ñu li ñu bëgg lépp da koy def nañ ko bëggee mm, rawatina rawatina nag rawatina ren jii ndax mm, daanaa fa ñëw sax waaye ren moom sax sama tànk tegoo fa te teewut lañ ci bëgg ak ak lañ ko wax ak lañ ko waxut lépp am na sax loo xam ne moom moo moo moo may woo <laughs> di ma ko di ma ko di ma ko proposé. ngir ngir lépp bëgg màggal gi mel na mel na war mel eh, te loolu lépp nag day dellu ci yow ndax mm, wax na wax na ma ci lu bari sa sa ak noo ak noo ko soññee ci liggéey bi ak taxawaay boo bëgg mu am am ko ci biir weer eh, kon nag day mel ne loolu nag feeñee ci eh, rawatina ji moom ndax sama sama tànk jaru fa benn yoon te li ma ko li lu néew la waaye <laughs> ci njëlbeenu jokkoo rek. la ma xamal ne ma Serigne Aliou de màgg la ci am yéene ju rëy rëy joo xam ne day mel day mel sax amu ci sago ndax ndax diggante ma ak Serigne Cheikh te loolu naa maa ngi fàttaliku bi ngeen di sos bisub alxuraan boobu ci ci ci weeru koor boobu suñu suñu bàyyi mën lañ jokkaloon ma waxtaan ci ak sëriñ bi ba ba ba nañ sëriñ yebale sëriñ Fallou waaw lépp ci doon kon loolu lépp day wane euh, sa diggante ak sëriñ bi jàpp ga jàpp ga la sëriñ bi jàpp ni mu ko waxee ak ak cofeelum ci yow waaye loolu lépp yi yoon nga da nga ko delloo ba mat sëkk nag ba mat sëkk ndax bis bis yi yaatu na te bari waaye bis bii moom yaakaar naa bi bi bi ngeen di commencé waajal màggal sax boobu ñun waajal ko ndax documentaire boobu ñu def suñu son yow daaw na lu yàgg yàgg te te defaguñ defaguñ ama première bi boobu benn benn télé yëngoogu ci loolu lépp nag kon day wane ne bis bi da nga ko def sa bisu bopp boo xam ne xaaru xaaruñu ci <laughs> waaw kon nag mm, maes naa seere sa taxawaay bu baax baax ci ci sëñ bi mm, kon nag kon nag nañ ñaan suñu boom rek barkeb sëñ ci baax suñu boom gën laa dëgëral gën laa sàmm gën a gën a barke liggéey bi ba yéene ji nga am ci liggéey bi am ko ci yoon wi suñu boom jox la jox la kàttan kàttan goo ko mën a taxawee bu baax a baax Euh, ndax xam nañ ne sa sa yéene ak ak sa pas-pas ci yoon yi moom romb romb na romb na fi nga nekk loolu moom xam nañ ko bu baax a baax <laughs> waaye nag sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom képp ku muy liggéeyloo la mu leen liggéeyloo moo la moo la ko jox ñoo ñaan mu jox la jumtukaay yokk li liggéey ci fànn yi nga yëngu ba nga àgg ji ba nga àgg ji fu kawe njort wala bala ba nga àgg ji fu gën a àggul <laughs> loolu lañu lañu lañu lañu lañu ñaan bu baax a baax waaw di sant nag di sant nag euh, moom moom sa sa sa njaboot njaboot gi yëpp rek ba ci ñi nekk Tuubaa it <laughs> doxin woowu la ñuy dox rek ci rajo bi ak ci lépp rek waaw kon lépp nag eh, ñu ñu ngi koy seere eh, sëñ bi sëñ bi loo loo noo noonu lañ ko ko seereele te sax xam xam na ci lu ci luñ ci xamul <laughs> démb rek bi bi bi bi ñu ciy wax ne li ma li ma njëkk wax mooy màggal gi ren gis na ne eh, communication bi gën naa gën naa yaatu baax baax. am ci bari yoo xam ne sax déggal na ko boppam te nag ken kenn kenn kenn kenn jiituwu leen ci ah loolu moom mën nañ koo seere ñun ñi nga xam ne dañu dañuy dañuy dañuy dañuy saytaloo ak ak ak ak taxawuloo mën nañ koo seere bu baax a baax waaw kon nag ñu ngi kon ñu ngi sant bu baax a baax ci turu bi ak ci turu kër gi yëpp tuwaat kaala jërëjëf. علمني الله العليم بما يشاء من ولوده وسبخني بالقلوب منصرفا بسفدي ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير سفدي màggal gi xumb rek te neex xumb te neex te it sëñ moom baax la def ba ku laal ci moom rek da ngay baax kenn du sëñ Tuubaa kenn du sëñ Tuubaa du sëñ Tuubaa moom fi tax sëñ Suwayb ku baax ku doon jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla rek la daan liggéey maandu te bëri wuti wax ku ñëpp sopp ku ñëpp bëgg ngir jaamu yàllaam ngir ragal yàllaam ngir dumooy gum dumooy àdduna loolu de moom xam naa ko ci a ah, ana kontaan lool sama xol sedd ci guy ndax juróomi fan yi moom dafa am lu bare bare bare lum nuy lum lum lum nuy duggee ndax juróomi fan yi sëñ bi man damay toog ba way ñaan naa yàlla na yeex waaye bis mooy jaar génne àdduna yàlla naa jëm ci bisub juróomi fan yi wooru koor ndax gëm guma ma ko bëgg ko bëgg yëg-yëg bu neex ci xol yëg-yëg bu daw yaram ndax jëmm ju mel ni sëñ sooy bu képp ku yàlla wërsëgale da nga sant yàlla bu baax di gërëm yàlla bu baax ndax nit la koo xam ni man xam naa ko bu yàgg dañ ma fi daan yónni booba ñëw goon Tuubaa booba maa nga dëkk mu naan jiyeen përi ñu dama yónni ci moom may gis ci moom jëmm joo xam ni ku bëgg alxuraan bëgg doomu aadama bëgg nit fonk doomu aadama te fonk doomu aadama gépp mu takku ci bëgg yàlla ak yónent bi ak Serigne Touba diggante Serigne Souhaïbou bu benn la rek benn la mooy alxuraan boo duggee ci daaraam ji nga xam ne Serigne Souhaïbou bu mooy alxuraan alxuraan lu ko waay liggéeyal alxuraan a la boppam soo ñëwee ci bis bi itam xam ne Serigne Souhaïbou bu mooy alxuraan alxuraan moom mooy lépp lu ko waay liggéeyal rek alxuraan a boppam jërëjëf sant nañ leen bu baax gërëm leen bu baax ci taxawaay bi ngeen am jërë ngeen jëf. màggal gi neex na wax dëgg yàlla ñoo ngi ñaar suñu son bu bàkkee yal na yàlla yokk leeram ci barsaak sa ñoom ñëpp a kontaan màggal gi neex na. sëñ bi tam wax dëgg yàlla na lépp ndax lii rek la bëggoon xasaay rek la bëggoon li mu bëggoon yëpp defal nañ ko ko yal na yàlla taas ci barkeem. damaa toog ba yàgg rek ma jóg ci naaj wi ni man daal mënatumaa toog wéradi yi bari na feebar yi bari na naa dem ba ca palaasu Seex Sooyibu ndax Seex Sooyibu kenn la woon nitug lislaam la woon nit ku baax la woon kon bisam jar naa dem siyaare moo ma tax a ñëw ni ma dajeeg yéen barke Sëriñ Fall ma am yëg-yëg ci moom nag xam ne lu fi waay taatan ci lu baax di nga dajeeg moom moo ma tax a jóge ba saa kër yàlla nañ fi daje déwén dajewaat fi déwénaati jeek di ñaanal doomam yu baax yëpp yi koy màggalal bis bi ñu yàgg koo màggal ñun itam ñu yàgg cee teew te yàlla defal nu gudd fan yokk xiwal gi ndax jamono ji xiwal gi kii na yokku wér xanaa santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant bu baax Cheikhul Khadim tey ñaan Cheikh Ahmadou Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Touba Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu yàgg ci ginnaawam sant bu baax njabootu Cheikh Souhaïbou Mbacké di ci beral cant nag ñi nga xamante ne dañuy kenn ci man ku mel ne Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Soyibu Cheikh Mamadou Lamine Baara moom Cheikh Soyibu sëñ am sotu Mbàkke jaalu batu maraqib ak soxna Bali Muntaxa ak mboolem nag njaboot Cheikh bu gépp tey ñaan ñu yàgg fi lool yàgg woote ñu yàgg leen a wuy si ci barkeb Cheikhul Xaddim xanaa sant yàlla ndax weer wi day weer wu tedd di weer wu màgg di weer wu sell di weer wu ngëneel Cheikh Soy bu gane ci muy ak cant koo xamante ne ci juróomi fan yi muy fan yi nga xamante ne kenn ku ci na xam ne weeru koor li nga xam ne sama borom moom la ci dël jaami yàlla yi kon bu ci Cheikh Soy bu ganee muy weer woo xam ne day weer wu tedd di weer wu sel di weeru barke loolu ak cant rek la ci Serigne Touba Cheikh Soy bu Mbàkke tey ñaan yal na yàlla dool ci moom ay ngërëmal yàlla Cheikhuna Ahmadul Khadim. waaw ah, dañoo ñëwoon fii nag siyaar si sunu sëriñ bi sunu kilifa gi sunu waajur wi muy sëriñ Abdou sëriñ Soy bu Mbakke Xaadimu Rasuul nga xam ne moom ñëpp xam nañu ne la bu mag ci yoonu murit ci lislaam bu ñëpp xam koo xam ne fépp fu waay mën a bokk jaar nga fi. wala sa kilifa jaar fi wala ñu jàngale la fi te loolu lépp ay ndam la ak ay tawféex ak ay xéwal yoo xam ne sëriñ sooy bu moo ko liggéey waaw doomi sëñ tubaala joo xam ni fi ñu ko liggéey la woon matte na ko sëkk mooy lan jàngale ak yar jàngale boobu ak yar lépp matale na ko ñoo ngi siyaar nag jabootam gépp di ko commencé ci sëriñ Ahmadou Mbacke bu di ñaan mu yàgg fi lool te wér ci barke Xaadimu Rasuul di nuyu bu baax itam sunu xarit koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci liggéey liggéeyal Serigne Touba muy Serigne Abdou Samad Mbacke Soyibu yéen waa Lamp faal it Serigne Mor ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal ndax seen taxawaay gis nañ ko lépp loo xam ne xew na ci yoon rawatina ñu cay tudd Serigne Touba rawatina kilifa gu toll nii nga xam ne mbégum murid yëpp la ngeen ñëw teew fi ñu ngi leen ci sant di leen ñaanal ngeen gën koo taxawee te rajo bi jëm ca kanam te daraje Serigne Touba barke Thierno Aïssa mbooleem njaboot gi fi teew di nuyu Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadir mi nga xam ne moo kàddu gi yoon wi te bu teewee waxam rek mën naa ëmb mbooleem bokki taalibe yi nga xam ne war nañu cee wax di la siyaare bu baax sëriñ bi di la ndokkeel ci bis bi di la jox siyaare bu mag ak nuyoo bu tedd nga jox ko mboolem jaboot ak sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke gi fi teew ci barab bi ak ci gox goxaan yi di nuyu yenn kilifa yi fi teew yëpp su ma ci tuddee Serigne Mahmadan Mbacke rek sama sëriñ tudd naa mboolem njabootug sëriñ tuwaa gi. di la xamal ne rek bi bis bi ñëwee gannaaw bu ñu dalalee gan ñi dalal délégation bi siyaare la bi bis bi ñëwee dag ñoo boole woon ak lenn ci njaboot gi ñu moo ànd ak ñun taalibe te Serigne Abo mi nekk ca bopp ba ci ndigale Serigne Abdou Samad Sohaibou ñu ànd ci liggéey bi di waajal bis bi ànd ko ak administration bi gouverneur de la région ñu di mboolem li nga ñu def benn CRD ci Diourbel mboolem li nga xam ne bis bi aajowoo woon na ko ci lu mel nii ci mbooloo mu mel nii ñu doon ko waajal lépp li nga xam ne yaakaar naa ne waxoon nañ ko ak gouverneur de la région muy service yëpp bokk ci kenn ku ci nekk jëloon engagement yaakaar naa ne kenn ku ci nekk li nga waxoon def nga ko ba ba jëf leneen la nga xam ne yaakaar nga ne lii de bis bi laaj na ko te àgguñu ci woon wala niñ ko nattee woon romb na loolu loolu nag su amee suñu ñëwee fii tey ñu la siyaare siyaare njaboot ak sëriñ Souhaïbou gi yëpp siyaare mboolem kilifa yi fi teew dalal gan ñi sant suñ bokki taalibe yi nga xam ne ñoom nga boole nag ñoom ñu ànd ko ñoom te ñuy nit ñu neex a àndal ndax ba ñu ko tàmbalee ba bii sëb tey bii ñu toog de la rendre compte di wax ak yow tey di leen sargal amul benn juyoo wal boo xam ne am na ci ak ñun lépp rafet na niñ ko war a def yëpp def nañ ko loolu rek laa amoon ci lu ma lay wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la ñaan nga ñaanal réew mi di la ñaan nga ñaan nawet bii nga xam ne yàlla ñu ngi ciy jublu te sëriñ bi joxe ndigal barki dem ñu rooje nga laaj nga ñaanal ñu mu nawet bu barkeel sedd guy bari ndox lool te lépp loolu daal mooy li nga xam ne moom laa ne woon danaa ko wax gis bii nag gisam njariñ la ndax fii moom yaakaar naa ne bu réew mi doon bâtiment ñu ne sëriñ Souhaïbou bu kenn yu bare bare bari tabax na ko ci ndax yaakaar naa ne li mu defar ci aw ak li mu xamal ci aw nit yaakaar naa ne bu ñu ko doon seet ci dans le monde entier du du bari ñoo xam ne ni gis nañ ko ci àddina bi wala gis nañ ko ci réew mi loolu nag muy mission missionnaire la woon boo xam ne dafa ñëwoon rek Serigne Touba suñ borom yabalal ko Serigne tubaa mu ñëw ngir taxawu alxuraan mu ñëw ngir tasaare alxuraan waaye mu ñëw ngir defar ay tànneef yoo xam ne yaakaar naa ne ñim defaroon ñëpp li ñuy defar am na tàmbali waaye amoon tam yemukaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mi nga xam ne mooy fii Serigne tubaa tey ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér. te njaboot gépp topp ci ginnaaw kon kàddu yi kàddu yi gàtt lool lay doon ndax ñëpp xam nañ ne li des ci dokk lu néew la te taajilul futur bokk na ci liñ gën a fonk ci sunna sëriñ bi ñi ngi lay siyaare ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ndax xam na ne bis bi boo ko ko jéggalutoon mooy fii ñëw jiite ko ànd ko yow ndax la ci jëkk mooy fii jëmmi Serigne Touba yilif njaboorug Serigne Touba gépp waaye naka jëkk lu ma sax xew ci sa biir kër gi danga koy wax ne ko yaa koy jiite si ndax yaay taw kër Serigne Souhaïbou nee na loolee nag waxoo ko rek yem ca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 li Serigne Touba doon wax ne wahab lana makaarimal axlaaqi maa tahaabu bila siqaaqi loolu suñu borom defal na ko ko mboolem ñi bokkal Serigne ak mboolem ñi bokkal Serigne Son bi kenn ku ci ne wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun dal na ko diggam ak ñoom kenn ku ci ne lépp lu gis ci lu baax yow la ko gën a yéene ci jëmmam moo waral itam ñëpp maase ci ñi mu bokkal Serigne Touba ak ñi bokkal Serigne Souhaïbou bi ñëpp ñëpp maase yéene ko jataayam bi ngir xam ne xolam bi ñëpp maase nañ ci xam ne ne perkaar rek li mel loolu lu baax néew ci moom te loolu ñi mu bokkal Serigne nañ ko ko seeral waaye nag ku wóotu ki mu fi wóotu allahu ahlamu xaytu yajcalu risalaati fi suñu borom mooy tànn ki war a jiite te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax naan sa kilifa loo ca fekk rek loolu ay sa sens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 ndax léppam alxuraan la woon lim mokkalal ci ay nit gindi leen kenn xamu nu toll te la ay yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayran laka min humri am defar kenn nit képp moo gën àdduna li ci biiram sëriñ soo bi nag ay junni junni nit ñoo defaroo ci moom kon la ko sëriñ Tuubaa waxoon ne ko li tax ma tàngalal ataaya ji sama loxo de mooy bëgg nga xam teraanga te fonk alxuraan loola nag ndénkaan la woon loo xam ne Serigne Touba da koo dénkoon ci njabootam gi waaye lépp matal na ko kon nag ñi ñaan bis bii nga xam ne ci la gane woon adduna balim liggéeyal Serigne Touba liggéeyal ko lislaam lépp yàlla def mu mën koo jëf bis bii saa su delsee yàlla na suñu bam gën a dolli ay leeram tataa suñ ci barkeem te liggéeyam bu rëy bi mu fi bàyyi tam na ko wax woon maa ngi koy wax léegi ci kër Serigne Abdou Samad na mu ko wax woon sëñ Cheikh Moussa Ibou Khad ci weeru weeru barax lu ñu ginnaaw suba koor koor gi fi mu mujj jóge boobu maa nga toog da ko wax ne ko jàngukaay bii de maa nga koy bëgg a ubbiwaat ngir bëgg njàngoom xam-xam yi ñu gën koo fonk ne ko li ma ci gën a jublu nag ñoom ñii laa bëgg seen njàng mi na la ma ci bëgg mu am ko ci ndax bu ma soñal daara ji de waxtu nekk muy bëri bëri ba faw loolu nag ku dugg ci daara ji gis ni nga ko liggéey dana xam ne yéen jëm ci woon àggali nga ko. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin suma salaatu wassalaam ala rasulullah seydina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu musloo ci seytaane sant bu baax julli ci sangu sang yi muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi yëkkati ay kàddu tàmbali ko ci kàddu nuyoo di nuyoo jullit muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi sëriñ Cheikh Say président Macky Sall moo ñu yónni ci délégation bi nga xam ni wax nañ ko léegi te ñu man cee lim ki nga xam ni mooy Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ministre conseiller Serigne Abdoul Ahad député El Hadji Dia di ambassadeur itinérant Isma Dioum di conseil spécial di Amadou fal Naïdé di haut conseil des collectivité territoriales di Serigne Djili Mbacké chargé de mission ak gouverneur bu région de Dakar de Diourbel gouverneur ànd ak préfet bu Mbacké ànd sous-préfet bu Ndaam ñu ngi ci délégation bi ak madame Néné di Haut Conseil des collectivités territoriales ñu fekk fi nag monsieur le maire de Touba Abdou Lahad Ka Gallo di maire bu Mbacké ak ñi nga xam ni ñoom lañ fi fekk te suñu boroom def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 noonu lañu àndante woon ñoom ñaar ba tey it bokk na ci li ko yàlla jagleel am na fii ab taalibe boo xam ni duwaañ yi dañ koo jàppoon bis mu am jafe-jafe ci njaboot gi ñëw ci suñu change bu wax mu yónnee ci seen Abdoul Ahad ko boo ko Cheikh Abdoul Ahad woo ca Touba ko wax ne ko ittey àddina bu leen ko solal ci noppam suñu change su ngeen xamoon fi mënu féete ci wàllu bàtin du ngeen jëlati ittey àddina di ko sol ci noppam luy rek ñëw leen wax moom la jënti ko noonu nii lañ àndante woon ñoom ñaar looloo nag moo fi nekk ba nëgë ni ci diggante Serigne seex mi ak Serigne Sidi ak nu ñuy seeni rakk seen digal rek la ñuy déglu yow nag sëriñ bi di sëriñ seex nu sant la gërëm la. ndax dangay ngay kilifa goo xam ne gu neex a kilifa nga goo xam ni ku la topp ci sa woyofaay sax nun ñu say rakk danañ am ngaañu waaye nag li wér mooy nu sant yàlla rek te xam ne lay pàgguteef suñ borom defal na la ko ndax yow fi nga bokk noonu xam nañ ko te suñu am satu jaxate ñëpp mën nañoo seede li sëñ Tuubaa def def ci moom te bi la sëriñ Souhaïbou Fabe jox la Cheikh Abdou Lahad sëñ am sot dafa am kàddu yoo xam ne da ko waxoon a yow te boobu ndaw nga te noonu xam nañ lépp daf la daf la ne woon sa baay jox na la Cheikh Abdou Lahad fexeel ba ngërëm lu Cheikh Abdou Lahad nga am ko soo ko xasee am sama digg ak sëñ Tuubaa koo ma cëb diggale su boobaa la ca des man a loolu mooy jataay bii tey nag kon nag sëñ bi ñu ngi leen ñaanal yàlla jataay bi yàgg te rafet te yàlla may la wér gi yaram ci barkeb Serigne Touba Cheikh Modou Bachir ñu ngi lay gërëm yooyu bu baax ci biir ci ci biir ci biir ci biir yoonu Serigne Touba yi ak ci këri Serigne Touba yi ak jëf ji ak jëfin yi ndax fu lu baax nekk rek ba nga xëyee ba tey toogu yaa ngi wër sa lépp bëgg a defar ak rafetal moo waral loolu xam nañ it fi nga teg Serigne Cheikh Amadou Mbacké mi ndax ñëpp bu ndee gor Serigne Cheikh duñ kenn ndax lépp lu ne ci nun rek ci barab bi lañ ko amee kon ñu ngi sant bu baax ndax jataay bi dafa xat di gërëm di ñaanal yàlla képp ku fi teew yàlla faj say aajo ci saayir ak ci baatin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.